asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi daaray miftaaxul munaa Tuubaa daaru xudus ni ñu ko baaxoo defee ak mu ne saa yu weeru safar teroo ñu jagleel leen ci album bu yes peq ci njàng mu am solo def ko ab yóbbal ci mboolem ñiy wuyu si wooteeb sëriñ tubaab bi tey bàyyi ko fu ne ci àdduna bi waaye itam jagleel ko mboolem ñi dëkk ci dëkk bu sell bi di tubaa tey daloo gane sëriñ Touba yi seen album ren bi dañu jàng ci xasida ak ilhaamul ilaah daa jot Serigne Saliou Mbacke. faasa alladina xaafasu daaju Serigne Moustapha Sy ci version Serigne Bolle Mbay. faasa alladina xaafasu ala jàng ci itam xasida ak allahu ak alhamdulillahi waxdahu daaju daaray miftaaxul muna jàng ci itam almasrabu saafi daaju sëriñ Moustapha Sy jàng ci itam waxul rabbi anzilni daaju daaray miftaaxul muna jàng ci itam xasid ak inni la xillun daaju sëriñ Abdou Khadir Sey jàng ci jës bul xulub daaju daaru mooti jàng ci itam faskuruni azkurukum waa kër sëriñ Masamba tëje ko nag man zanna xayrallaahi daaju sëriñ saalihu mbàkke man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fasaaka bi seen album boobu yi nag dana jàppale ci ñëpp li ko dale ci juróomi fan ci weeru safar ngir mën ko am fépp ci réew mi ba ci yéen ñi nekk ci bitim réew su ngeen jokkoo ci numéro téléphone yi yéen ñi fare ca Ndakaaru mën ngeen a dem ca parcelle unité 11 baa ngeen jokkoo ak Serigne Saliou Diouf ci 77 957 69 89. wala Serigne Mbacke Kayre nekk ca Pikine station Texaco ngeen mën a jokkoo moom ci 77 561 81 13. bu dee yéen ñi fare fii ci Touba dem leen ca Maktab Touba Darou Sam Serigne Jili Diop ngeen mën a jokkoo moom ci 76 652 71 76. wala Serigne Modou Sall ñu gën koo xam ci Sall Couture ci 76 304 10 84. wala ca marché Darou Khoudoss Serigne Moustapha Diakhaté ngeen mën a jokkoo moom ci numéro 77 811 74 15 wala Omar ci 76 349 07 bu dee yéen ñi fare ca Louga mën ngeen a jokkoo ak Serigne Adama Ba nekk foofee ca Louga 77 323 83 25. yéen ñi fare bitim réew nag mën ngeen a jokkoo ak Serigne Cheikh Bombali Cissé kon bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen ñi nekk ci réew mi ak ci bitim réew album bu yees baa ngi noonu di album bi leen daare Miftaahul mën a andil ci atum 2021 bi di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye itam di ñaanal mboolem taalibe yi màggalum jàmm